bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar jiital ci dëgg nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam moo fi nekkal tey Cheikh Amadou Bamba te mat ko sëkk ki rakkam ak mbokki taalibe bi yëpp di ci yi nga xam ne ñooy sunu bokk yi yéen siqal si Ahmadou Bamba ak yéen bokk yi nga xam ne nooy sunu bokki taalibe bi yi nga xam ne ñoom ñoom lañ bokkal yoon wi ak bokk gi bokkal lislaam bi yëpp ñoo ngi nu nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp nag ci taxawaay bii nga xam ne taxawaay taxaw ngeen ko ci muy bisu Serigne Omar Mbacké bi nga xam ne Serigne Omar Mbacké nun moonu boole ci sëñ Bamba ci dëkk bii ñuy wax Daaru Sakkoor Gelongal nu wooteel ko fi bis yëgal ko bokk yeeg taalibe yeeg xare yi te li ëpp ci ñoom ñëpp teew fi surtout njabootu si Ahmadou Bamba gi jëpp mm, ñëw nañu mm, loolu noo ngi ciy sant ñëpp di ci gërëm ñëpp di ci santal sëñ Omar Mbacké moomee nga xam ne it moo liggéey liggéey bii ba mu agsi fii ci digg ak Serigne Touba ndax Serigne Momar kat daa wax ne moom sant naa yàlla lool ci lii ma leen di a wax li ma ciy njëkkalee mooy dama bëgg ngeen yëg ne keroog bañ ma joxee sëñ Bamba ak jant bi tey dellu ma sama kër baay te keroog ba ma xewee fa Mbàkke Kajoor sëñ Bamba ma tudd ci sama yenti at lañ ma boole fasu naaru góor ak sama takkaay yaay ak sama mbayu mbaay jëbbal ma sëñ Bamba fii ci Touba am naa ci loxol sëñ Touba fukki weer yaar mu soog ma ne baa siin mii ci dimbi gii ci kër sëñ Souhaïbou maa ngi sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou bam nu ne dama bëgg ngeen tàmbale jàngam alxuraan it mooy sëgey seenub liggéey da ngeen ko nangoo nu ne ko waaw mu ne bu ngeen ko nangoo lu ngeen bëgg daa ko defee tey ak من نا باسي ميم نوح لا موحد دافنا تك با ياك مانا بو لين تي خلات در نا غاو غي خم اك بان غي فات نيكول سي يين سي مان مي واخ يين لا نتتنا كو ديف سي يين نانا مون خمال لام نون خمال سي لام ني بوبام بو سورتو ياسين سي لام تولو سي موم مودينو بيندل دينو سا دي راخصني الو ديني ديو سي تاري لول دافنا نكو bi mu joxee sëñ daam Abdourahman Lo fa ndaam maa ngi sëñ Modou ak sëñ Fallou noo bokk benn lal sëñ moo roqi Boussa ak sëñ ma Mbakke euh, Kenni ak sëñ Cheikh Ka bàyyi sëñ Moussa Ka nee noo bokkoon ñoo bokkoon benn lal sëñ Bamba mi juróom-ñetteel ci giir gi bi mu daal tey ñibbi si wattu fa tàmbalee jàng sëñ Mor Diarra ak sëñ Bakki Boussa ak ña demee na ñoom ba mu ñibbisee fekk nu ñuy bind kaamil yooyu mu ñëw Daaru Marnaan juróom benn weer yem fa am daf noo woowoon téyel nu boppam dinu jàngalal xam-xam ci làmmiñu boppam ba mu dem gànnaar daf noo yóbbaale juróomi at yente at ba mu fa jógee ban jàng ba xamatuñ lu ñuy jàng ci ñi koy siyaaree ak naaree ñëpp ku ci ne jàngal ban defee na jeexal nañ téere yëpp ba nee jolof nag mën a dikki leen dama bëgg a waxtaan yéen dama dugg nag ci daaray tërbiya tërbiya ak tarxiya ak tasfiya Abdul Xaalil Jeylaani Junaydin ñaari kilifa yooyu la ko sama borom masa jaare ndigal ci sallallahu alayhi wa mu jaarale ko ci ñoom ñoo ko mos a def ci daari duniya bañ fi jógee léegi nag yoon woowee daa mel ne daa far ngay yoon woowee daa bëgg a yeesalaat di ko leen tàbb ci daara tarbiya nag yéen bu wér lu dongam la xasaay di def defal nañ ko sëñ Tuubaa ci Jolof ci juróomi at yéen dafa am guddi ba ci duñ lekk duñ naan duñ nelaw te fekk na nu bindal ko limu kaamil waaye daf ne ma Samba Omar Mbacke Modou Moussa Falilou kenn ku ci ne nag ma bindal fukki kaamil fukki kaamil yooyu na ngeen ko bokk benn bu ngeen bind bu àggeen ngeen woon ma la ngeen bind ba fukki yi mat takkusaan gun dikkee woon ko la nu bind dana tibb bar ci loxoy baraay bu ñuul kukk te woo ci sunuy loxo ku ne loxo na dem leen jëfandikoo ko looloo fi ne boo lagee mu def ko ci bar bar ci loxo yi dugub bi suuna boo lagee mu def ko ci bar ci loxo yi daakaande yi rek loola def nañ ko juróomi boole ko di bay di rooj di taxan di defi mbaar di sàkket ak lu dongo di def sëñ Fallu daana tàllal loxo ne lu góor di def sa loxo bi def na ko tey ji lañ bi mooy dund bi nag nee na ab ngi ci gannaaw kër gi koo xam ne dañ koo gas ba mu xaw a xóot buñ jullee timis ku ne yóbbu fa sa satala ca ndox rimba ko mos tip ñaari tib képp wéere ko kubóorum ndox ci ndoxum satala loolay loolay dund waaye lu mu na ci mos a jox day wax lii ma leen jox fàggul naa leen ci lor su ngeen jógoon di ko wuti ba Makkatul Mukarrama ak Madinatul Munawwara de ko jeexaati si ni day des si àll bi lu yaay du ngeen dafa for lu mel nii keroog di wàccee mille neuf neuf la leen wàccee ca Jolof waaw ba leen wàccee ca daara jooju teew ñuy liggéey nag ci biir kër gi ca jigéen dañu ànd ak moom nag ba duus nag ñu soog a ñëw waaye liggéey bu metti boobu bépp moom wàccee na leen sax ci yenn liggéey waaye mbind mi nag ak buub ak sak jubbante sàkkat ak raadoo sàkkat ak yooyu mosuñu ko bàyyi ba mu ñibbisi bañ ñëwee njaareem nag ba am fa yaari at nag di 14 ak yooyu tras 14 ci leen nañ waxal nag kenn ku wut foo liggéey ji te bari bañ a sori Tuubaa da ngay siyaare si kay amul Mauritanie gànnaar gànnaar rek sar sar ak fu dem nañu liggéey yu métti yëpp foofu lañ ko daa daana wax na yéente at yi ma doon gànnaar sëñ Tuubaa bu bëggay wattu ci saa maa koy wat buy léewi ko sëñ Modou xëy bu saa koy léewi waaw bu tëddee ci tóoj gu wow koŋ kenn du ca lal dara sañoom sa tuji xatee yéeg ci kaw tóoj ga di ko yu bës loolu koy sa la ñëpp si nag bañ tàmbali di ko liggéeyal it mu boole la nag kenn ku ne ñu ànd ak yow di leen liggéeyal da ngeen maas ci liggéey jàmm yàlla rek leen wax adduna moom bu ngeen ci gis lu lu dal sutur rek la dëgg-dëgg teraanga àllaaxira la am ku bëgg sutur su adduna da ngeen liggéey liggéey ku bëgg teraanga àllaaxira da ngeen moo jàmm yàlla loolu la leen waxoon loolu mooy waxi Sëñ Tuubaa ci ñooñu wax na leen ne leen dama bëgg ngeen góorgóorlu ci nekk ci lu baax ta sax sa képp ku ne ci lu baax ca sax ca ak foo ko defe fu mën a doon ne la wóor na képp ku ne ci lu baax ca sax ca koo mën a doon ak fu mën a doon loolu safaan jege jege jege jege jërta moytu jërta tiit taxoo ko jóg loolu waxi sëñ Tuubaa daana wax ne na ngeen góorgóorlu di ci def lu baax te watub safaan yàlla li bëgg bëgg bëgg ku def lu baax ko bay lu mën a ko gënal te def lu baax ak bàyyi lu bon dañoo dend waaye bokkuñu fii mu ne mënees na def lu baax waxtu woon na ci àdduna te doo la tax a bàyyi lu bon la yàllay tere waaye waxtu woo bàyyee la yàllay tere lépp jëlatul laa yaa ngi ci la yàllay digg te loolu laa gënal yàlla di ngeen góorgóorlu ci waxtu yu juróom te di ko sellal te di ko jënd ca maxtaan waxtu ma ngeen di saxal jàngal xuraan ne guddi gën mujj ci fanaan jolof ban jullee gee ba noppi dafa dikk leen waxtaan ak yéen dañuy bëgg dem ci réew ma te la ma des ci liggéey ma ne ko def foofu yéen a koy àndal booba la jëm si njëriñ daal di wax ne ku bëgg juróom-benn da ngay def na ngeen ko déglu bu baax ku bëgg a jegeeti suñu borom ci yéen nay faral di jàng alxuraan te saxal ko ku bëgg waxtu wooyo faatu deesu la isaab deesu la asaab deesu la iqaab ci biir bàmmeel del julli si yonent bi sallallahu lu bari ku bëgg adduna joo xam ne ji alal adduna joo xam ne dootoo ko ñàkk loo am delloo ko yàlla ma la ko joxoon wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrul raasiqiin ku bëgg àndandoo ci yéen ku mën a doon nay am ci ngir ku bëgg àndandoo nay aw ci ngir am ngir boo ca àndee boo ca jaaree nit dana jot baa nga jot nit aw ñela nag ko ca jaar lii ba lay bëgg a wax dal pakk dina la fil dig jam la loo le kenn du ko for kenn du la jot bi li la weesu dëkk ba sonn lool te danga ko weesu da nga sonn lool sa agoo sa dëkk ba te ñàkk a jaar ci yoon wi la ko yóbbee kon dañ leen wàcc jaar ci yoon wi tudd leen ko wàcc loolu nag mat naa dégg bu baax na ngeen déglu bu baax ku bëgg a noppalu nag koo xam daa bëgg a mucc ci yéen nga xam ne daa bëgg a mucc rek yàlla aar ko bu mu kuy tooñ du mucc mukk na ngeen ko xam kuy fayu doo noppalu kuy tooñ doo mucc kuy fayu doo noppalu waaw li ngeen jaar ci siraat mustaqim bañ koo wàcc képp koo xam ne la la yàlla digal yaa nga ca dootoo tal mukk la déggalul ko gis muy dégg def lu yàlla diglewul rek daa na daa wàcc ndigal waaye ku ci nu na ci ndigalal yàlla moom dootoo tal lu yàlla diglewul loolu na ngeen ko xam te yàlla bëgg na ko def lu baax waaye ku bàyyi lu bon ko gën loolu wax na loolu ci waxtaanam la kon nag ma bi ngeen fi daje yéen ñëpp tey man du ma ab addis kat wóotuwuma kenn di waxtaan loo xam ne dama naan lii baalaa waaye li may wax te di ko jële ci samay waajur ak ñu mel na ñoom te gëm loola te jàpp ko te ñu ko jële ko ci sëñ Tuubaa ma di ko nettali kum neexul waxal sëñ Tuubaa rek la neexul waaye waxuma loo xam ne sans waxi bopp ma jubbanti benn taalibe jàmbur itam digaluma benn sëriñ dara rey ndax digalu jotumaa ko sëriñ lu ma koy digale di sëriñ si ñi ma ci gën bari na ñi ma ci raw bari na waaye nag seetu ba man xiilaa xaala la sëñ Omar wax ne sëñ Bamba ko wax te mokkal ci ay waxtaanam la ma ca mokkal te du ma ko yokk du ma ko wàññi loola ay waxtaane te sëñ Saliou de bi mu fi nekkee daana wax ne ma loolu wax ci sëñ Omar jëlee ko sëñ Omar tam jëlee ko sëñ Bamba digal naa la man Saliou man na ko yokk te yaatal ko te yooyu war a ko nañ ko ci def na daj këpp àdduna xam sëñ bamba jot na sëkk sëñ bamba ko ko xam da ko bëgg ku ko bëgg liggéeyal ko ku ko liggéeyal jëriñu àdduna alaxira te xam sëñ bamba jot na loolu dama ko daax daana wax ne ma ñaari kàddu yëpp yoo xam ne dama koy dund te da koy yokk yokke sans doxin na ko ah man de mbàkke xuma yow loo yokk ak loo yokk man waaw maa li ma la wax ma dama ko xam ndax sa baye la jur waye ma la ko gëna xam fukki at ak juróom am naa ko jur xool sëñ Omar Mbacke maa ngi sëñ Abdou Lahad ak sëñ Souhaïbou ak sëñ Abdou Samad ci Touba gii te boobu sëñ Touba gii jeereem te moo na booleeg moom ba mu nu woo nu dikk ma ne dem leen ñu dem leen dikk dem Touba Saliou yaa ngi Abdou Lahad ak Souhaïbou ak Abdou Samad ñëw leen dem Touba ci këram sa tu jaxate seen na jaay alsaan ma fa ne laa bëgg mu defal leen Ah, mu defal ma alxuraan ci yéen am satu moomee eh, ma leen di yabal nag lam bokk ak seen yaay ndey ak baay taxul leen ko yabal damaa def ci am satu loolu damaa bëgg mu defal ma ko ci yéen te loolu ab yaara koy waral te yaar jonjoo te mënatumaa jonjoo kenn loolu sëñ Saliou ma ko nekk nu na tekk mu ne ko Omar Mbacke gam taxalool nag lekk ak naan ak solo ak ko dee leen ko fa defe Faati Mbacke man jiitu ci kër ga sama dooma bu ngeen demee na ngeen ko def mooy seen yaay ñu teg ma ne Omar mooy mais nag noo bokk bàyyi sama taalibe waaye gërëm naa ko lool boobaat la ci teg sëñ Saliou bi nag nee na kon nag xam naa ci sa bàyyi lool suñ ma nee sëñ Thierno may nuyu moo lay nuyu mën nañ ma ko ñëpp katalul soo àgsee ma ne nañ ma ko laalal boo àgsee ma ne nit ñëpp déglu te bu ma nee ma ñaari baat ma ko koo fëgg foo bëgg gànnaaram jolofam mbakke kajooram daru salaamam tubaam daru minam am foo bëgg mu ne foo wax baax na ma ko ne sëñ Omar nee ma ne man ko sëñ Bamba nee ma ne laa ilaha illallah dal jug taxaw takkoog saxam ñu téew su may dem mu ne mbooloo mi ñëpp na bala si man ku nuyoo ku nuyoogul na ñëpp jóg gunge sëñ Ceerno ba ca waxtaan yi man mii toog maa ko waroon gunge sama tànk neexul na ma ko ñëpp gungel ñu dar ma ma mel na sàcc ah loolu laa gisoon de waaw loolu nag bëgg sëñ Tuubaa dong ak xam ko moo tax mu daa def loola kon nag sëñ Ceenoo ngi wax it ku mu a doon ci adduna damaa wax ne lu sëriñ ñàkk ñak yi taalibi fukki wëndëng daa ñu jébbalu ci yoo xam ne ay wëndëng la ñuy doon wëndëng yooyee la jébbu ci yow nag te xamoo yow jub nga am déet te wóor na la ñoom jubuñu booy addi sa ka xaalis tàmbalee fa tàmbalee ci sa dem ci say wëndëng waaye wëndugo jàmbur woo xam ne mbedd leen boole loo xaale ma ne xaale wu ma benn taalibu jàmbur waaye damay wax ne ñi may wax ma bëgg nañ ko dégg saa yu taaliba laay waxtaanal sama bokk yi muy yëlif laay waxtaanal ku mu na kooku sa mbir da nga koy seetaat aj ko def day bañ ku seenu kaw te malaan bu desee jot ñoo dee koy xaral te saño war daana wax ndogo yi nañ ko baag ña wooroon yooyu yëpp nag mag laa te dooyu laa daa koy wax waay nee naa lay di ab sëriñ te donga yëpp gën la ndax say defin baa say waxin kat ay la defe ne yaay gën ñëpp nag ak ndof la am na ñu la bëgg la doon ngir xam la te mbokk kat lépp loo ko ëppale xam leen ne mbokk xam leen ne mbokk lépp loo ko ëppalee lu lu baax du la ca ñee xam leen li le loolu saa waay maa ko wax de te ñëpp laa ci yemale ku mu mën doon ma dégg nga wax loo wër ta wax baa nga def ko dara du ma ca jaaxal dama damay xam la tax man ko daay tax la xam la tax nga di ko def waaye yàlla dimbali na ma kër bañ samtee yoonu Mbàkke Kajoor ba fii may toog ak yéen dara lu fi xew ci yoon wi te xawma ko amul ku mat a wattu laa nag xam lu bari maa nga ma yar dof juruma dof yëruma te jàng naa dox naa te kenn mosuma seen ma taxawu lislaam daaye kenn mënu ko benn taalibe ci adduna boo xam ne xam naa la boo xam ne dangaa mos a yor saab leetar baa ma ñëw fa si bitik baa ma fa ne na la sàppale moom xolam amul ci yoonu murit sëriñ sëpp laa baak seen i taalibe lëjaluma kenn ci taalibeem lëjaluma kenn ci boolam ma kenn ci jibaam li may wax la comme naqare comme naqare da ngay seet bopp waaye fi ma toog jóguma fi lu bay lu bay ak jaamu yàlla yaakaaruma ko yaakaaruma lu weesu jëmmi sëñ Bamba moom rek laa yaakaar waaw ak kana kana kana ca yoon wa te da ca nekk waaye sama baay dañ nee na asgor de boo deñeeg réer ba noppi amum réer bu teñeeg réer ba noppi amum reer du caagee de ku mu neex nga war ko de yor teg dong foo fekk nit daal ko koy teg day du ñëpp de nun day teg gi tegu ci gannaaw waa Mbàkke Kajoor du ñëpp mayuñu ko ñëpp moom da nuy gën a jub gën noo ragal yàlla gën noo maandu rek gën noo bëgg sëñ Tuubaa te loolu doom kenn duñu gën a bëgg sëñ Tuubaa waaye man ne lu ma waaye mën a ëppale lu mën a doon ci adduna lay tax du ma la ca ñëwee mooy li ma la bëgg a wax bari na ñoo xam ne lañ la ëppalee ci wërsëgu adduna dong ba am pay day suul man loo loo jomb rek ci wax ba jëfi man na koo xam ne loo ma mën a ëppale man man lu ma jomb tax nga def ko baa baa nga wax ko nga xam ne wax lu ma mën a lu ma jomb doo nga tax nga am ko loolu jomb naa ko te du la ca ñee du la ca roy it te sëñ ba jaxate de la wax ma laa déggu sëñ Tuubaa de néew na Babacar jaxate dajaleen mbooloo mi waxtaanam ñoom te feere yee ci ba mu leen dajalee rek dafa wax ne ah bul foog ne ab xaalis ay dongo rek ki yëf ak kër yu dana tax kat gaaya baax di la naw lay tax ña baax di la naw loolee du adduna kat adduna ak li ci biiram ak mujjam na ngelaw ña boole woon penku ak waasoowu ñëpp yilif koo ji si ñoom mi ngi tey yii paxam ne bari kër ak rafetey soxna du ndam xamal na lëf du fa lul jëf bul wut lulul yàlla ak yonneen ba ak sa sëriñ ngir maa ngi nii ngir mudul mii nag mooma ngir bu caaw ko gis mu aw ngir mudul ngir mii ci alku la jëm bul itti woo taaxe kaw bul itti woo ñële xaw sa yitte jëpp na jubloo jublu faw ci waral bu bis penc baa dóorus fa ñëpp taxaw te lay tee nga booba bis nag loola rek di ndam te loola xam nge du juddoo ci mooy ak jëfi ndaw te ñii lay dawal di la waxtaanal di sakku sa mbég boo dee dañuy romb sa xabru ko dox ci sa kaw te maa ngi lay bëgg a dénku dénk dénk ko bu wér bul gis sakam yi la lay neexal ba tax nga kejaw bu doonte am koom la ak mbooloo dafay tax a gën xaaroon a gën ñëpp ak firaw na yewu ndaw te xaaroon na alku ak kooma mu rëy ma mu yor firaw na alku na ak mbooloo mu rëy ma ko aw te naa maa ngi lay xamal tuti lo man di deg ki gis yow ci ngene la ki mbég fiig tabbi wo aljanat am dog la kat na nga daw lolu la wax marché okas ngay karo bañ ko nattee ak jënt tey mo na ñaar fukki at tank tànk jam mbar gi ma dendal di sun diggante ñent kilomètre mosumaa dem mbar marché mbar da koy deg way xamugo bañ bis la taalibe yi ca Ndakaaroo yee ca faneen laa yemale benn taalibe mu buy liggéey ma xam fa ngay liggéey amul lu ma ci waay ji defal da laa neex nga dama ko defal ngir yàlla waaye wax ju neex taxut jëy la taxut wax ci sab sëriñ dara lu neex ak lu naqari taxut jotuuma ak sëriñu kenn dara addi suma kenn xaaliwuma kenn te sama baay daana wax boo déggatee man nga gawar wàccal boo déggatee man nga gawar wàccal Ceerno Mbakke Ceerno Mbakke yi daa bari waaye ñi ko wax ñëpp ñorewuma leen noonu sofewuma leen noonu xam naa ko de xam naa sama bopp waaye duma ma wax lu ma warta wax du ma def lu warta def ku may tëru ci sa kër doo ma gis ku may tëru ci sa bitik doo ma gis ku may tëru ci doo ma gis yemale ci loolu lu ma waay di defal da koy da soob rek sa digg yàlla ak yonent bi ma neex la xanaa nga dema ko defal waaye du ma la wax lu la neex te du ma nooti sa kër waaw foofu laa ne de te kenn musuma séen ma taxaw fu lislaam di ayet te keroog ba yoon yi xewee Mbàkke Kajoor ak jantub tey bii xam naa fi lan su ko waxoon asamaan si wàcc léegi te kenn xamaluma tous man ah man de loolu la foofu laa nekk de na lu waay wax baaxalee te say boo di waxal sa bopp ndax nee na nit ñi duñ waxal kenn dara te sëñ Tuubaa day wax na ne nit bu la xasee bañ te baax rek tax mu bañ la loo gën a baax mu gën laa bañ ñu ne teg mu waaye boobaa na nga sant yàlla te xam ne ku baax ku bon rek koy bañ sëñ Tuubaa ne ku baax ku bon koy bañ man de loolu xam naa ko waaye bañal gi sañu ma koo bañ sallallahu alayhi wa sallam ne laa silta ma sooda yàlla boo deñ mu ko jidi kuñu ku ñu añaan ah loolu lay dëgg sallallahu alayhi wa ah ñu ko bëggoon bëriwul de ba fii mu ne leen lislaam toloogu na war a toll sëñ Bamba mbëkk di mi di woote dëgg ñëpp genn wàllu nit ñi bëgguñ ko waaye mu sëñ Ba Jaxate na sëñ Bamba yow kat ku lay yow kat ku lay weddi tey jii ak ku lay gëm a yem xamal yow sëñ Bamba yow tànnee fi waa penko ak waa sowo topp na la yow gërma yaa ngi fi yow waa doola yaa ngi fi yow ñëpp di sàkku yi ngërëm ma koy dof ba mokku la يو برومي دارا را في روت الاكاي تخانل سي ديني بير لا كوكاي لين كالي دوم سفول يو يا ويسو اي لور تي ويسو توما ويسو لوبون ييغلنا يالا ميغي غون لوكو خاي نخول غني لي ادنا اك الاخره غي في يو كو بوج جيتو مروم تيما فيك سي لا كوي كير كير كاي ووتو باخي تي باجو لا موي امتي لا مي كير كير كاي ووتو نوي سيبرو yaa woote ngir yàlla nun noo ngi te ku gant torox te yàggatit ba xolom seddi te wuy siw la waaye wootee la woote ku dul dem naari mujj na xoo ba mel na waaye kay dem naari dégluwul loole la ko waaye bul foog ne ab xaalis ak ay doonga rek ki yëf ak kër yu dana tax gaa ya baax di naw ah boobaa demat naa diglu bu baax nit ñi de amuñu ci luñ soxla ci sëriñ bu amul ci pasaroo amoo ay tabax day amoo ay gañalaa ki yëf di ko sol yégal na teguñu la fenn waaye ñàkk gañ lay teg fenn nag du tee nga tegu fenn sëñ ba jaxate nee na sàkkul ñu xam la eh sàkkul ñu xam la fa pie bi yàlla xam ngu rafet foo si fenn fu dul piyam ba faj la lëf amaana ngay gis ku mboolem réew yi yàlla yi xam te bu ko tuddee fa yàlla mos kasa amaana ngay gis ku mboolem nit ñi réere mbiram te boo ko tuddee fa péew yàlla saf ña fa saf ku saf boroomam ku muy soofa ku muy ngir saf na sapp mbiram diisi te dootu woyof foofu la nekk nun waaw ngor daal la nu bëgg am nun ndax nit bu gorewul du am du mën a doonu jullit bala ngaa mën a doonu jullit da ngay gore dañoo bëgg am ngoro nag ba noppi am diine islam ba noppi nag am fayday liggéey am teewarte jaamu yàlla am bëgg ci Cheikh Ahmadou Bamba yooyu foofu la ne ku bañ a la ne ku ci nekkul sa mbir la at la fi am sëñ Sidi mii fi jóge léegi te baax lool yàlla na fi am junniy at fii la gane àdduna keroog ba ko sëñ Omar di tudd sëñ Abdou Lahad da ko gërëm naa ndayam lool de te mu yége ba mu yégee waajtaay waay daa jàngalub kabil moo tàmbalee alif laam miim zaalika kitaab moom sëñ Abdou Lahad asan ba kamil ba wàccee ndaw la di ko nag am na ma ne li ma ci jublu kat damaa bëgg rek moo xam ne ci lan nekkoon ba mu ñëwagul ba mu nekk ci la nii ne ba tudd ko jotee ñëwit ko sëñ Omar mënoo sëñ Omar yaa fi sëñ Bamba fii ci nii bi tey ndax yaa sëñ Bamba bokk bàyyi nguur si ñu lu andil na gërëm naa ndeyam yett nag yow laa ko sase na gudd fan na am barke na doon murid saadix wax naa ko sëñ Sidi fi ñëwee sëñ Omar na ko yooyu yëpp de gudd na Abdoulahat Sidi mii na la nuru rek bu la nuroo loo ci bëgg lu ci bëgg daan ko am ne yow de nuru nga sëñ Bamba lool ba ko ne nuru nga sëñ Bamba rek daa yuuxu ci nii ñu téye ko nee na ko boobu jël sëñ Abdoulahat daanu na ko mi nga moo ko sëñ Omar seen bokk ndek baay baay bi sëñ Omar ak baay bi sëñ Touba bokk benn baay sëñ Modou Anta Sall sëñ Bakka Joor bokk Maam Balla waaw loolu am na waaye sëñ Modou Moussa day bëggoon na sëñ Omar lool te fonk ko noote woon na fii loolu du fi jóg guddi ba cëkk waaw Baara fi njëkk ñëw dégg naa fekk fi sëñ Omar mu ne ah ana borom kër gi rek de ñu ko daa génn Mbàkke ma ne kon borom kër gi ñëw na rek am na fa ñaari fan ñetti fan ñeenti fan soog a dem sëñ Massamba ñëw na ba tey sëñ Basiru ñëw na fi ba tey doomi sëñ Bamba yëpp nag noote nañ fii sëñ Soxaay bu ñoom sëñ Fallu sëñ Fallu dafee dëkkoon ndax Madina fi juróomi kilomètre waaw sëñ Saaliw nag ma ku sëñ Bamba jur man ko cay Mbàkke ma ne baa yar noote nan sa kër baay ci Tuubaa noote nan ko ci daal sa kër liggéeyam dem gan fa daa dem nag xayte gaag sell gaag ñam tuwaar kala mbiyaar la gu rëy gaag yëpp dëgg la waaye yooyu taxul fay dem lam jëlee ci sëñ Bamba te nu bëgg loole lan daa si jamono loolu moom sëñ Sadi wax ah loolu moom day na mboolem sëñ Cheikh Fatma ñoom ak Bakki Madina ak sëñ Moudou kenn ku bokk sa da si baara sëñ Moustapha Bassirou kenn ku nooti wut kër sëñoon Bakki gi ba ci sëñ toog tey bëgg di ba soo jógee lu ma defaloon amut fu ma féetewul amut te loolu ñëpp nag kër sëñ Tuubaa gépp a fonk sëñ Omar ñoo fonk njabootu sëñ Omar waaw te sëñ Fallu ah sëñ Omar mi kër sëñ Tuubaa da ko fonk lool da ko ne woon toog mooy suñu kaw kat man ma saa toog ko di <laughs> ah te sëñ Touba. ne sëñ Touba bay waxtaan ba ne sëñ bi sëñ Mor Anta Sali la waaye bu nee bàyyi nag sëñ moo sëñ Mbacke Kajoor la juróom benni weer am na ko ci barabu sëñ Bamba bii bind na fi ñaari kaamil keroog ba ko sëñ bi yeewi mu war a dellu Mbacke Kajoor la ko sëñ Touba dana dana la wax seekare fii ma la dalal nga am fi juróom benni weer bind fi ñaari kaamil bis ma wàccee ci liggéey bi Vincent Bollou liggéey la fii lañ may denc. lam dig sëñ Mbàkke Kajoor nag ca fanu jëm ak i jaar-jaaram loolu xaju fi te yoonu tali bi néew ci waaye nag la woor te woor sëñ Modou Moussa ne sëñ Bamba a jur ñu ne ko kenn wérantu ko mu ne te dégg naa ndigalam ñu ne ko kenn wérantu ko balaas mu ne waaye juba ma doy kon nag lu nu mën a dégg ak lu nu mën a lees jub rek a doy yàlla nañ nu jubal rek yàlla na doon ay jullit te doon ay gor te doon murit saadix te bañ boole sëñ Tuubaa daal لوده كذا أو هي مم إنتوا على وسنوي باي بنيو من اللي ما بقوا حتى نيجين لولي وهي كبر دنا تسري مي دنا تس أدنى بيب تدنا أكسي في ما بقوا حاجين تجلون في كذا جنس أب خايس دنا تس أدنى بيب waaye bu kere ña xaalis li yàqal bu leen ci bokk yéen na xaalis li bu téeméer xëyoon la xasaay ne moom rek la ñuy wut juróom ñetti fukk yi duñ ko am ñaar fukk ya koy amee nañ xam ne xaalis ba taxul leen di jóg daa jaar fa ñoom dong bu fa nee jàng daañu daal di faatu ba buñ fa nee jàng xaalis ba ne ma ci leen waaye duñ fa nekk mukk di yor xaalis ba di ko fooy jëm àll bu ngeen bu ngeen muy wuti dërëm bàyyi leen ko dërëm muy wuti te wuti ngërëm koo wut ngërëmal yàlla ab dërëm a nga danaa leen yëgal nag ne liimaan ak lislaam ak fene yette fas yooyu ku ko toppatoo te war ca bis fu mu mën nekk lu mu roq-roq da nga mën a fekk boo wàccul yoon wa waaye liimaan ak lislaam kan am na ñetti fi bëgg a jëlee tubaab bi laxasu na dafa ne dana fi jëlee liimaan tubaab bi laxasu na dana fi jëlee lislaam jigéen ñi laxasu nañ daal ñu fi jëlee lislaam yett yooyu bi fi demee jógee ba kenn gisatu leen bu keroogee duutu leen gis mukk doom ju ju gën baayam duutu leen gis mukk rakk ju taxaw gën mag jafa jóge duutu leen dégg ren tana ci nun daaw ngeen wax ko tamit dëgg ci yéen wërsëg bi dana yokk jigéen ñi yokk xaalis bi yokk ceeb bi yokk waaye jàmm du ca am de ca biir féex du ca am bëggante du ca am yéenente jàmm du ca am loola nag du jàmm te xaalis bi waaye mën a am ci amoo ca jàmm du am jàmm suñ mbokki penku yi yori milliards ki xaalis ay libu doole wurus lu ñu ko bal yaa ngay takk guddi bëccëg du ñu de فوفنا لك نعبيتي مين تجيلي تلو لاخي وتلو لا أما يا ركف القتال بعد بوبي سنج بقى ما وق موت أخي أخي أم تريني هاي كون بره ما سلون أنا بيا سنج موسى كان ينا سنج بامبا يا نو يا نو جوكين باعوب تيان بسمة أو يا تيتو بابي دفنو أي ساندرمو يا تبا يا الله بفريرم نو yaa tabbatee yaa tee maruug ña waaf ci doj fetal yooyu yëpp nag mënu ci suñ tubaab musalee ba noppi ci ak ñaanam ak dara jaam ak jaamum yàllaam waaw waaye war na noo xam bëggug sëñ tubaab te bëggug sëñ tubaab weesul bëggug suñu boroom waaw dafa am ne ko man de Balla Aïssa dama ñàkk ndey ak baay ñàkk na jaay te bëggoon a ñëw waxtaan ci yow ba xam naa def sëñ bi ko loo ca bëgg a def mu ne ko xanaa toog fi yow rek mu ne ko fii de dee su fi toogee yooyu moom kaay ma wax loo xam ne moom nga war a def dikkal dellu fa nga jógee boo demee defal jaamu yàlla muy sa baay defal liggéey muy sa yaay defal doy lu muy na jaay da ngay siyaare si fii waaye yooyu ñàkk ko moom du tax kenn du fi toog am na ko ko ne damaa bëgg a seex sëñ bi da ko xam nga seexa ah déedéet ma ne ko seex de moom mooy seex loolu bon rek ku la gën a seex loolu bon de kookaa la gën a seex la ca des nag boole ni ak nit dong la loolu nag danaa la ci wax tuuti taalibe yi ma leen booleel ñu wuyoo seen jigéen jigéen fas yéene tax bis bu ñu la suulee da ngaa dajeeg wor yoo xam ne ba nga juddoo léegi mosoo gis wor yu ne toll te te boo sañoo doo ñëw doo bay dem àllaaxira te nee na tallaahi laysa yanfa'u sax-saxadaa inda udduuri lam si wa xayrula waat naa man Muhammadu Bamba ci màggu suñu borom ngi ne dara du jëriñ ab jaam ëllëg fa wàccug bàmmeelam nga loolu fekkoon mu amu siraatu mustaqim te sëñ Tuubaa ne bis penc du ma ci ñëw it ko yaakaar bis penc doo ko gis te ko ñu sukul fi suuf si sëñ Tuubaa la fekk ci bàmmeel ndax wuti wu ca dara ci bàmmeel lu lu mu jotee yow ba ne la fekk ci bàmmeel yow la ñu la digal defoo ko la mu la tere bàyyi ko lu nga di ko tudd loo ko tudde da ngeen a jotee dara te nee na ma Mouhamadou Bamba ju yomb jooje ku nekk ci sukuraat te néewoo woon ci sama ndigal malaayika yi duutu ñu nangoo nga xam sama tudd ba di ma tudd loolu sëñ Tuubaa ko wax te nee na Ceerno donc yi ñu fi jébal si lañ waxoon ñu ko de la ma leen waxoon ni defuñu ko néewoon naa na ngeen góorgóorlu ci jaamu yàlla rek laa wax jaamu yàlla gii ma def ngeen di ko yéen seen yéen nëf ci sama bopp laa koy de dénk naa leen nag ku ci ju góor tuddee ko san ay bokk te bàyyi seen bokk yi démb yi ngeen di tuddee doom ni ay séeréer bii sa lis ma suuxu ba da limaan ku ci amati doom tamit ju góor boo amee yetti at jox ma ko ma defal ju bàyyi benn bàyyi mënul ci doom yàlla na soppi xol yi yàlla na soppi xel yi ban bañ a bëgg rek ab xaalis te yemale ko ci xaalis rek waaw nañ bëgg sëñ Bamba rek am na kooku day sëñ Bamba rek kon ana loo gën bëgg mën ko yow laa gën a bëgg mu ne dënn ba mu yàgg mu ne ko xaw bis la ngi ci kanam bis la ngi ci kanam boo xam ne nga xam lu bëgg ma jëriñ bis a ngi ci seen kanam bis bu ñu ci yendu jee baano fanaane hmm. bu këree nga xam lu bëgg may jëriñ waaw kon nag bëgg sëñ Tuubaa yàlla nañ ñu ko defal hmm. ndax nee na wax fil bi jaayil Mustafa li a man ahabbani li wa ci maalik te waaw wax na ko baax te nee na képp koo xam ne kii bu ñu may waxtaanee sa xol a ngay jug a ngay weddeeka lañ kaaraka seet hmm. waaw bu ko weddi de boo dee woon mooy alooy ma foos tey ñu bind ci ak texeeleem